jërëjëf mbokki Sénégal mbàkk ba jub la générique bi départ la wasaare lamb tàmbale la ci jàngat lamb ñu leen siyaar bu baax a baax a baax fépp fu waay mën a nekk moo xam ci réew mi ak bitim réew di leen jaajëfale di leen kontaane bu baax a baax a baax tey nag ñu indiwaat beneen ponk bëgg ci waxtaan démb waxtaan nañ ci mbëri ak promoteur yi tey ñu fas yéene waxtaan ci promoteur yi nga xamante ni ñoom ay bayeeru lamb lañ ñoom ñoo yëkkati seen avance dem jox mbër dem CNG jàpp date di dundee yaakaar de wuri sponsor ba am li ñu bëgg ci làmb tëgg journée bi dem arène nationale moo xam stade Diop Iba Mar moo xam feneen ak feneen ak feneen koo xamante ni mbëri dañ fay euh, def li nga xamante ni mooy euh, jàgg euh, wane seen bopp tey nag ñu fas yéene waxtaanee ci loolu liñ ci bëgg gën a waxtaanee mooy promoteur yi avant mbas mi di di am jot joxe seen avant ay mbëri mbëri mbëri mbër jox nañ leen avance su ma juumul journée bi ñu mujjee tëgg ci arène nationale euh, mu ngi doxoon ci diggante euh, Fourrière Grand Yoff ak xale bi nga xamante ne mooy bébé Diène jour journée boobu Assane Ndiaye moo ko tëggoon euh, Baol production beneen journée bi ñu ngi waroon bëri ci dimanche ba diggante Sokh ak Gamou Gueye promoteur bi ko jox avance joxoon na avance moom it ba mbër yëpp ku ci nekk. amoon na ci ñoo xamante ni jot nañoo mos ba mbër yi nga mujjee dégg ñoom it jot nañoo mos loolu lépp après ci kanam dinañ leen dégtal ñaari promoteur parce que ñaari association promoteur ñoo am bii suma papa papa Abdou Fall moo ko jiite bii Dieye moo ko jiite mais suma papa papa Abdou Fall woo naa ko léegi mais dafa am ci réunion bu mu nekk moo tax euh, moom mujjee woo kii di nga xamante ni mooy Fallou Ndiaye njiital Bawol production moom it moom laay fas yéene ànd ak moom ci waxtaan ci wàllu wér. wàllu yi nag dinaa ci ànd ak Dieye président Dieye moom it ñu waxtaanee ci lépp loo xamante ni dafay yokk làmb lépp loo xamante jox nañ mbëri avance fan lay mujjee ñoom état bi ban taxawaay am ci mbëri état bi ban taxawaay la am ci promoteur yi nga xamante ni jox nañ leen seen xaalis yi leen déglu parce que dégg nañ ne état jox na ku nekk waaye dégg ku ñu benn yoon ci làmb ñu yëkkati benn don wala benn geste boo xamante ni defar ko làmb te pourtant jàngoro bi bi mu amee làmb bokk na ci ñu njëkk a yëkkati seen xaalis seen doole moo xam mu néew moo xam mu bari mu joxe ko parce que loolu geste la boo xamante ne dañ koy sant képp koo xamante ne bokk ko ci làmb parce que mbër yi def nañ association yi def nañ te ku ci nekk yóbbu na mbëri na seen association ñuy siyaaraat bu baax a baax a baax ki nga xamante ne moo nekk ci bopp ba muy Gris Bordeaux gis nañ geste bi ñu def rafet na trop association promoteur yi ñuy siyaaraat bu baax a baax a baax suñu papa papa Abdou Fall moom it gis nañ geste bu ñu def rafet na loolu waaye wolof daf ne mbaam gàtt na lool waaye ci jur gi la bokk li tax mbaam gàtt na lool waaye ci jur gi la bokk mooy nañ gestuwaat làmb parce que lépp lu lu président bëgg wala lépp lu autorité bëgg dañ ciy woo mbëru làmb bu ngeen xoolee élection yi passé mbëru làmb yëpp occupé woon muy Balla Gaye 2 muy Modou muy Eumeu seen muy keneen ak keneen ak keneen ñoom ñëpp ànd nañu ñoom jàppale leen ci wàll yu ñu nekk kon tey bu làmb amee jafe-jafe wala làmb am benn taxawaay boo xam ne feebar bi laal na àdduna bépp jot na ñoom ñooñu nga xamante ne ñoom ñoo jiite réew mi wala ñoom ñooñu nga xamante ne ñoo ñooñu fi nekk ñu desuwaat ñooñu làmb bu baax a baax ndax metti na trop. mbokk yi kon noonu la ñuy dugalee ki nga xamante ni mooy Assane Ndiaye njiital Bawol production ñu fas yéene waxtaan ak moom ci lépp loo xamante ni euh, jot nañ leen ko wax ci mbas bi activités yi nga xamante ni ñoom jotoon nañoo joxe avance ñoom promoteurs yi am na mbër yoo xam ne jotoon nañoo téye avance am na ñoo xamante ni jot nañ leen a jàppal date ba loolu lépp na mbokk yi tey mbas mi waral ñu activités yu baree baree bari dagg tey Assane Ndiaye mu ngi ci ligne bi su ko defee ñu nuyu ko wéy ak moom waxtaan Assane maa ngi lay nuyu. forage. ñu ngi leen ñu ñu fas yéene waxtaan ñu fas yéene waxtaan yi promoteurs yi nga xam ne dañoo jotoon jox ay mbër avance jotoon na jàpp seen date ba mbas mi waral activités yu bari arrêté wu euh, loolu ban gis-gis nga ci am en tant que promoteur.

def nañ ko jox leen ay avance préparé conférence bi le hmm. la. bi la. ndax bu hmm. loolu lañ nekk ci Assane mu am loo xamante ne Sénégal gépp rafetlu nañ ko ci association des promoteurs dajale somme bokk nañ ci ñi nga xamante ni euh, buñ dul ñi njëkk bokk nañ ci ñett ñi ci njëkk wala ñeent ñi ci njëkk ñu dajale seen koom-koom yóbbu ko ci ministre des sports ñu ànd moom dem ba ci ministère de la santé jox ko ko tey loolu ban ngir jël ngeen ci am. tëddee. donc ñun ay ay promoteur yi ñun ñuy jaajëfal promoteur yi. te loolu du ay jàmbaar lañu ay ay garab lañu. te mbir mi xëy na yaakaar naa ne ñoo nekk troisième personne boo xam ne joxe nañu dimbal. boobu dañ doon gànnaatu affaire bi pour teel ku fay ne pour mu bañ a tas ci réew. dëgg la ñun nga xam ne Sénégal yëpp moo ñu déglu Sénégal yëpp ñu teel ñu jël suñuy moyens jël suñu alal. jox ko hmm. hmm. am na ci tur ñoo euh, leen aar daal euh, li ma ci sant leen mooy gërëm producteurs yi sant mu am loo xamante ni ñu ngi koy gis. président mu ngi jàppale ñëpp ñoo xamante ne dañoo bokk ci yeneen branche mais gisaguñu ñu jàppale waa làmb wala boog yëkkaguñu fenn foo xamante ni euh, jàppale nañ waa làmb parce que xam ku xam promoteur xam ni moom mooy bailleur bi nga xamante ni moo yëkkati ci moyen boppam jox mbëri avance fi mu toll ni mbër bu ci nekk tëdd naa ak avance bu promoteur promoteur bi day mujjee ndéggandiku rek ba saa su mbas mi fi jugee rek moom ñu jàppal ko li nga xamante ni mooy datam mu mun a tëgg làmb est-ce loolu du metti ci en tant que promoteur loolu du metti ci promoteur làmb yi. Euh, bi mu a euh, état la ñuy arrêté bi ñu arrêté donc jàppale boobu ngay wax man gëm naa ne xam-xam bu gàtt rek gëm naa ne dinañ jàppale ndax lamb day sport numéro un hmm. nekk. Hmm. ci dañuy am ñuy xaar procédure bi ba ëpp si ñoom jox leen. Hmm. mais gëm naa ne jàppale promoteur gisuma ko moo tax ma gëm ne dinañ am ak ki nga xam ne mooy li kilifa mu monsieur le ministre Matar Ba ñu wóolu ko mu wóolu ndax doo dégg benn promoteur bi jël na sànni xeer wala nga gis benn promoteur bi kenn wax lu ñaaw mhm. déedéet. nit ñi ji la ndax euh, nit ñi def dañ ko def lu baax. Mhm. waaw gis nga bu la defee ci boppam da nga koy def ci sa bopp. Mhm. donc euh, la wax. Hmm. ci euh, hmm. mais ñu ci bari dañuy wax benn kàddu que ni euh, est-ce que du yéen yéen yéen a jàpp ni jàpp nañ leen mais alors que sport bi gars yi bàyyiwuñu leen xel ci làmb. xel. Hmm. ndax képp ku Sénégal la làmb mooy sopp mooy numéro bi kon donc comme li ma la wax rek dafa am ñoo xam ne euh, yaakaar naa ne ñoom seen gis-gis ñoom ñoo gën a sonn wàllu wàllam. Hmm. ñooñu euh, ñu ngi ñëw parce que jur naa ne ci kàttanu yàlla dina jàppale laam. ndax laam ba xam na fu mu leen teg ñoom te ñoom it am nañ lu teg laam. Hmm. li ko waral mooy gisuma gisuma ci benn effort euh, liñ defal laam ñu defal ko benn effort. dëgg la moo leen di di di arène nationale tey hmm. la bu euh, yaakaar hmm. yàlla bu yaakaar tas Assane bokkoon nga ci ñu mujjee tëgg arène nationale ci diggante Fourrière bu Grand Yoff ak Bébé Diène. bis boo bis boobu am na signature contrat bu ñu fa gisoon muy général Malika ak fils de Balla mu nekkoon journée boo xamante ne askan bi yëpp ñu ngi ko doon xaar. presque vingt lutteurs yoo xam ne pare woon nañ lépp joxe nañ ay avance régulariser nañ combat bi au niveau de CNG doon xaar ci heure ci ñu dëkk ko. Hmm. yàlla dogal lu métti daal. Hmm. mais nag dañ koy sant yàlla ndax yàlla lu mu def dañ koy nangu. nga hmm. gis lu métti te am na lu tax yàlla def ko. dëgg la mooy loolu. Assane Kour. yàlla dogal mu dal mais nag. di xaar daal. ñu ngi xaar waaw waaw. ko xam làmb xam ne làmb dafa metti euh, mbër yi moom mbaa duñ la woo di la wax promoteur dolli ñu temps dugalal ñu temps parce que mbër yi fi mu toll dafa mel ni seen gafa ga dara nekkatu ci def. waaw hmm. na ko woo wala mën na ko boole wala kon ñoo ñu wax arrêté leen di arrêté. kon ñoom kenn ngi lay jaajëfal bu baax a baax baax di seen disponibilité ñu lay bu baax baax. dëgg la. cër bi ngeen ma dëgg mu jëm kanam te li ngeen di expliquer Sénégalais a xam. yàlla gën bu baax a baax a météo yëpp xam nañ lu yàlla dogal moom kenn du ko dara. dëgg la. waaw ñu ngi nuyu nag Sénégalais yëpp. Hmm. fépp fu waay nekk àdduna ñu ngi leen di nuyu di leen jaar. Hmm. rawatina waa diaspora bi ñu ngi leen di mën a wut. ñu ngi leen di dalal ndax seen liggéey lu bëri yàqu na. Hmm. kon dañ leen di mën a wut ñaan yàlla mu dooleel leen kàttanal leen ndax xar dawul daawul di doole. dëgg la amiin. Hmm. Hmm. Sénégal di ko ak yeneen jàppale leen taxawu bu baax a baax ba yàlla ko fi yëpp dara jërëjëf mbokk yi kooku mooy Assane Ndiaye njiital Bawol production Bawol TV ñu koy jaajëfal bu baax a baax encore une fois gis nañ yéene bi mu am ci wasaare gis nañ ñaanal gim ñuy ñaanal gis nañ jàppale gim ñuy jàppale ci combat am euh, bu ñu ñëwee ci làmbam mosuñu faa dugg rek am fa jafe-jafe wala ñu am problème ci làmb Assane Ndiaye ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax di ko wax nag wolof moo ne ku bindoon ni tama ñu tëggale ñaari boor xëy na jàpp gi mu jàpp wasaare ak bëgg ñu bëgg moo waral mu teg ñu fi nga xamante ni foofu la ñu teg koy ñaanal borom njiital euh, Bawol TV borom Bawol yàlla suñu borom kàttanal ko dooleel ko ba lépp lu mu naal bu mu am ci làmb yàlla suñu borom may defal ko ci lu kawe koy jaajëfal bu baax a baax encore une fois su ko defee ñu ñëwaat ci waxtaan wi ministre bi wala boog président de la république mu jàppale leen comme ni mu jàppalee ñeneen ñi nekk ci yeneen branche yi muy nag wax na wax ju am solo ne daanu nag dajut dajut waaye doon na loo xamante ni euh, doo ko dëkkee di wax waaye ku leen jàppale ñoom ñu jël ñoom promoteurs yi nga xamante ni yëkkati nañ seen moyen bopp dugal ko ci làmb jox ay mbër avance avance boo xamante ni bu baree ba bari trois mois la waroon diire nga récupérer sa xaalis mun ko dugalaat ci yeneen juddukaay sa xaalis nag boo ko bàyyee fenn muy nelaw nelaw bi yàgg lool jot na na ñu jàppale leen ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo ŋànk làmb ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy bayeeru làmb yi muy promoteur yëpp moo xam ni bokk ci association bi Pape Abdou Fall jiite suñu papa moo xam ñu bokk ci association bee nga xamante ni Dieye production moo ko jiite ndimbal la boo xamante ni daal ñu ngi koy séntu ci ñoom ci ñun ñu bokk ci làmb ñëpp ñu ngi koy xaar ci ñoom ak ñi nga xamante ni ñooy mbëri su doon loo xamante ni bëgg nañ ñëpp ñoo xamante ni dañoo bokk ci làmb ñu jàpp ko waxtaanee ko ndax nag làmb ji suñu làmb la te amuñu benn sport boo xamante ni ci réew mi moo ñu gën a làmb parce que sport bu ñu mën a daw rek wuti ji ko rek dañ koo jéggaani te sport bi dafa doon sport boo xamante ni foo wër ci àdduna bi fii rek nga koy gisee mbër mu yor sengoor sexlaar mbaa mu takk béjjën ci bopp ba dugg si ci làmb sotteekoo soow bi loolu aada la loolu cosaan la loolu doon na loo xamante ni lu rafet la te sport bi di làmb képp ku ñu ciy jàppale dimbali ñu ngala nga jàppale ñu ci dafa mel ni tey nga jëlee benn nasaraan bitim réew indi ko fii ci réew mi di ko jox jox ko li nga xamante ni mooy liminaat yi ñuy jëndee ci ci boutique yeeg yu mel noonu di ko ko jox mu koy naan te foofu la jóge maanaam day mel ni comme si que euh, jugewul bitim réew ñëw ci réew mi parce que ñun dañoo am loo xamante ne ñoo ko moomoo suñu bopp waaye ku jëloon lii di bisaab nga pressé ko defar ko ba mu rafet nga jox ko ko mu naan ko laaj la lii lan la nga ne ko suñu gàncaxu réew la ñoo ko bay ñoo ko defar defar ko traité ko ba mu mel ni mu mel ñu jox ko dina ko yéem làmb nag noonu la demee ñun ñoo ko jël moomal ko suñu bopp defar ko rafetal ko naayisal ko ba képp koo xamante ni wan nañ la ko mu doon loo xamante ni dafay kontaan dañ nga ciy kontaan bu baax a baax a baax sport bi di làmb képp koo ko won rek moo xam mu nekk bitim réew moo xam mu nekk ay nasaraan yi moo xam fu mu mun munti nekk ci àdduna day gën a kontaan ci sport bi day gën a fier ci sport bi kon nañ leen jàppalewaat waat ñu bokk làmb wax naa ci mbëri wax naa ci promoteurs yi bu ëllëgee dinaa ñëw ci ñeneen di leen jaajëfal bu baax a baax a baax di leen tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ne moo du tàqali ko deuxième partie bi dinaa ci ànd ak kii di Ousin Ousin laay fas yéene toogal ñu waxtaan ci ñu jàngat ci deuxième partie bi waxtaanee ci bilan bii di écurie Waalo écurie Waalo bi nga xamante ne fa ndaanaan yëpp nekk kon mbokk yi may leen ñu tuuti nestin ñu ñëwaat ci njàngat làmb ak ausin